ndeysaan willi ndeysaan malien lu muy indi nii lii ñàkk teg la lii ak ak ak lan ak mbaxalu saalum ak ñebbe <laughs> waaye làmb gi waaye ay waaye làmb ñibbi na waaye làmb gi gàmmi lii da xanaa mosoo koo gis ci làmb paan bi rek ki kay lekk yërëm naa ko daal la. munoo ko avant ngay bëreel. dama lay ñuul xol ma baax la. Eh, xol ma baax daw kat nga ragal nga avant ngay bëreel. daw kat nga xol ma baax. amoo fit daw kat nga. ay ca. dama lay nokk daal yow. Thank you. signature bi la. mais tey suñu yaram dafa daw xam nga li lañ ko nam nag tey yaakaar naa liñ gis fii vraiment bariwul sax luñ koy gis Sénégal ci genre yu mel nii mooy discipline bi yar bi vraiment te ñëpp dañoo dagg bi ah pour ñëw séance signature contrat kon tey jàpp naa ne lii du caaxaan kon Gambie mu ci beneen level boo xamante ne nii bu Sénégal deful dara attention rek dina demee neneen ci làmb ndax vraiment liñ gis fii day dalal xel ba pare di encourager promoteurs yi pour ñu mën a ñëw ndax promoteurs yi lay wër promoteurs yi ay businessman lañ li ñuy yëngu ci wàllu business la tey bu ñu gisee business bi gën a doxee Gambie dañuy déplacer ay moyens pour ñëw Gambie pour investir fi ndax nag lamb rek moo ñu tax a jóg te vraiment liñ gis fii dafa dal suñu xel trop di am mbégte it bu baax di wax jamaïcain vraiment mérite na lu mel nii ndax yaakaar naa boo xoolee ni ñu nekk mel. fi ñu nekk boo gisee ni mel nga gis mbooloom fi teew nga xam ne tey jii làmb ja ku fa ñëw di nga gis leneen kon lii mbégte la di ko ñaanal yàlla mu am fekke ak tal ba suñ boom àggaleel ko li nga xam ne moom la bëgg. yaa ngi noonu mbër maa lay ziar. delloo waaw. koy bëreel. Eumeu Sène. kan. Eumeu Sène Eumeu Sène. Eumeu Sène. waaw. moom ki mu tuddee boppam wax na de. <laughs> maa gën a weex fuuf. wër na sëñ Bamba. du mën a yow. yéen ñaa bëre simple lay doo wala bëre doo. simple man nuru naa la koy bëre simple. looloo ma jaaxal. ah. xoolee di nga xam ne man weesu naa bëre simple. yaa nar xeex ak ah. xool ma ba xam rek ndax ñeme naa xeex wala ñeme wu. daal xam naa bis bi moom waajal nga ko ba mu waaj ànd nga ak say sengoor indi nga say lépp indi nga bare euh, nga mystiquement. man maay mbëri bandi ku dul du la support. waaw oh, man ku dul ma support rek. leer na kii gàlla. ama ngay ama ama sànq tàngal nga ko ba mu ama bal de lu mu doon. non dara non ah dañoo yëngal rek. du dara. waaw. mais laale bi est-ce que du leen jural dara yéen non non dara bu ko laal dama rek bu jeexee jeex na. ah mais li doon koo xeeb. non moom bu mu xeeb na mu ëpp. waaw. ak ëpp doole du benn. waaw moo xëy na moom moo gis loolu garaawul lamb isa lépp na leen incha allah nga xam ne Ama lay waaw borom ngay gëlee. Ama Baldé kenn du yow. loolu ngi noonu. gis ngeen moo ndeysaan Modou Lo kookoy Modou Lo Modou Lo wa ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu di dugg si ah, sama xol na ndeysaan ndongo wa ngi noonu moo war a laaleeg Cheikh Tidiane waaye Gàmbi miin na ko <laughs> Modou la building a ngi noonu building la building a ngi noonu la ilaha illallah building mooy yëngal ga sëb làmba ngoog de ndongo loo ngi noonu cowet ja koo koy building ñu bàyyi ko mu tuus teg teg teg teg lii moom daa mujjee mel ni bëre la ndeysaan ay ca demal noonu promoteur la boo xamante ni xale la waaye Sénégal ba mu fa nekkee def na fa liggéey bu am solo ma nga ànd ak wulli affiche bi ñaar ñi mu àndal tëgg na leen ci combat daaw ñoom ñaar ñu ñëw fi def ci liggéey bu am solo mu ànd ak suñu papa Lamine Samba nga xamante ne vraiment mu ngi Sénégal di liggéey liggéey bu am solo ci wàllu média ci wàllum tele Lamine Samba suñu paapa ji ma nga noonu ànd ak Ngagne Demba Ngagne Demba boo ko déggee mooy borom géejawaay Ngagne Demba képp koo xamante ni mooy mbër géejawaay wala ngay artiste géejawaay moom Ngagne Demba mi moo lay wat. wul el ndeysaan ma liiru jaan doomu nday wulee léegi noonu xoolal suñu papa Lamine Samba ndeysaan xoolal ma jamaïcain la mu sañse def na costume def cravate macha allah xale baa ngi noonu. hey Jamaïcain cey làmb grand Cheikh Samba ngi noonu moom kenn du moom saan lii mooy làmb saan Jamaïcain ngi noonu. ndeysaan nañu dékk micro bi déglu taataan ko. si basket doon bi jël benn yoon jàkkaarloo am fi tey bu nga dugg see jam lan nga yëg. waaw kontaan rek di wax na ku yokkul yaa wàññi. lamb dañ war a wanewaat leneen ñu bees du lu fi amoon rek la ñuy war di wane ndax place bi boo ko xam ne place bi yokku la place bi yaatu la waaye ñu dugg ko borom baax ñu borom baax day jaadu ñu ñëw wane wane ni fii lu nekk xaj na ba pata lu ne mën na fi am face à face war na fi am te place soo koy wan askan wi da ngay xool lu ko jar xam ne dina tax nit ñi sabarkat yi dégguñu micro yi de moo tax ñu ne ba indi combat bu mel nii sabarkat yi dégguñu micro yi de nga tëggee combat gi tey ku fi ñëw xam ne nalaw loon parce que covid bi ñëw na ñu aj ko wax dëgg yàlla tey ku fi ñëw xam ne ah, lamb amoon na beneen xam-xam te liggéey moo koy wane waaye sant yàlla rek gërëm waa Gambie gërëm journaliste yëpp waa Fësal waa Gawjo maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp ku journaliste fii ci réew mi di wax ne lii yëpp bu amee journaliste yi la ñun mooy génne sama xaalis te li si des dañuy bàyyi ak liggéey bi ñu ngi ko fekkal di nuyu bi nekk fii yëpp di leen ñaanal jàmm xewal sutura di wax nag askanu Gàmbi man aw ma seen fay waaye cofeel bu ñu am si maa maa maa maa leen raw si côté boobu. dafa mel ni 27 maaj dina mel ni ku gis bët na saa door yi. alhamdulilah waaye jëm su ma def nii dafa doy waar ñaari mbir yàlla dëggaloo diggante bàyyi ma jox ak ak waaw ñu sama xarit lañ. loolu ba léegi ñëwagul ci tey ma ànd ak ñoom ànd ak ngañ gamba borom géejawaay sama xarit ànd ak ñoom sax Samb père Lamine Samba jiini wasaare ak ñi yëpp nekk Sénégal yëpp ñëw contentement nag lañ ciy am ñeen tamit ñu ñëw fekk leen ci liggéey liggéey bu am solo kon yàlla leen yàlla defal jàmm baa ñoo ay ma nga noonu di dugg si demal combat ba tekki na montre ba daan jox duñu mbër bu mu duggee ci suñu ba léegi ay problème rek la ne maa ko maa ko ëpp doole dama koy duma daan ko ama mi tapé na la dawgat la nee na xawma ma koy bëreetil waaye du doon malien wala ku mel ni malien moom la combat bi sax combat bi xam ah, naa bi xam ah, naa sa ah, ah bi neex li neex ndax ma ñemewu ma bilaa du neex dee taxaw du neex bilaa du li ma xam li ma xam nag bu taxaw day daw nee na buñ la loon fay doon. yow ragal ga yow lañ koy wax yow mi daw combat bi man Ibo Town laa dëkk Ibo Town ragal dëkku fa ragal dëkku Ibo Town. ñu ne ko Ama Ama ngay bëreel xool ma Ama ngay bëreel yow xa yow dañoo fenn xool ma ma bii ma sama bët yi xool mu baax avant ngay baax. waaw waaw. lu xew li yàgg na ci làmb coowal buntu kii mooy dugg kii du dugg yàgg na ci làmb <laughs> ay jamay kee. lay maa ngi lay ziar baax a baax. tur bi Malick. Malick nga bokk ci staff Fallou Ndiaye Ndiaye production. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di la encouragé bu baax a baax a baax baax di nuyu sama soxna di ko wax bon fête di ko di ko wax ni bonne bonne bonne fête awuma fayam nag franchement quoi maa ngi koy encouragé moom bu baax a baax a baax ne ko mu jàpp fu mu jàpp foofu la waaw di la déglu nag quoi. tey ngeen ñëw organiser fas yéene organiser lamb Gambie euh, ban lan ngeen koy waajee ak nan ngeen ko fas yéene liggéey. waaw sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax di féliciter suñu frère Jam di ko di ko encourager di xamal ni bés moom du tuut borom lay tollal quoi franchement xolam xolam la ko suñu borom suñu borom fay. ndax moom ku baax la quoi lii rek lii dong la mën a la am quoi ñun nag ñu ngi waaj quoi le 27 le le le 28 incha incha allah face à face di ci woo ñëpp nag franchement quoi kontaan naa trop nag ñoo Leket Baara la moo yor a France toj nañ nag Pofton ndeysaan Leket Baara moo war a laaleeg France Leket a ngi noonu di dugg Leket a noonu di dugg si ñu ngi koy lalal jàpp nañ ci jàpp promotion. cey lam Moustapha Gueye nga xamante ni dañoo mën a bis mën làmb ndeysaan làmb tey jëlee nañ ko Parcelles làmb tey jëlee nañ ko Sénégal làmb tey jëlee nañ ko Pikine làmb tey jëlee nañ ko Mbour làmb tey mu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy Gambia ndeysaan ci diggante Leket Baara ak France Jam Production moo fi woote xoolal ma lii Leket am na lu muy xaar Leket am na lu muy xaar cey lam dégluma waay sabarka si mamo dégluma mamo mamo dégluma mamo ay cë ndeysaan e dudu fay agori mariama ba musa gole ma ndeysaan Leket lu muy xaar coow li yàgg na ci buntu stade diw mooy dugg diw du dugg fayal ko xaalis mu dugg Balla Gaye yi ki amoon na fa Abdou Aziz Ndiaye moo mujjoon a fayal képp ko ànd ak Balla Gaye Bas safana dirke mal e mario e beso con ringola safana dirke e beso con mario beso con ringola okay Sénégal ñëw Gambie ci affiche bu mag dox sa diggante ak France tey signature contrat bi bi nga dugg see gis stade bi nu mu mel lan nga yëg. waa di sant yàlla bu baax a baax di kontaan si yéen bu baax si jéego yi ngeen jógee Sénégal ñëw ba fi fekkee bés bi am nañ si kontaan bu baax a baax waaw bu ma ñëwee dugg gis stade bi nii su ma xool dafa tooy parce que ñun lii lañ xam si lii lañ yaroo si làmb lañ xam bu ñëwee gis làmb mbas mi nekk si réew bi ñëpp xam nañ na la demee mais bu ñëwee gis lii dañuy kontaan a baax a baax. supporters yi bi nga dugg see dafa mel ni gëm-gëm bi ñu am ci yow amuñu ci yow sago bi ngay dugg ci bunt bi ni nga dugg see ni ngay génnee lépp loo def damay mel ni ku gis Modou Lo buy dugg ci làmb stade Sénégal. dëgg la comme dañ maa xam te dañ ma am yaakaar bu rëy si man te man taamu ma leen di jox gàcce moo tax tey ñu ma gisee rek seen xool day tooy parce que am na suñu jógee te am na luñ bëgg jëlaat tamit soo man saa su ne lu may bëre rek su ma moo tax may bëre. mais du la keneen ak keneen bu dee supporter na parce que dafa métti ni da lay bugg te yàlla tax di sonn si yow te doo ko xam kon boo ñëwee rek wala fulla fayda ak jom si ñoom mais. su combat yi ak France lan moo koy gagné. combat bi su soobee yàlla ak yonent bi si kattanam ba mbaaxam combat bi suma combat la. lan moo koy gagné xeex wala bëre. ah lu koy gagné non lu mu laaj rek mooy gom naa ne si bëre lay jeexee gom naa loolu. yéen ñaar kopp doole. non man mboru mbapat laa dama ko yàgg wax. boo ma gisee ni si jëmm da nga waaye mboru mbab ku ko xam amee doore bii la yore yee France mun jaar fen ba ëpp ma doole. bu dàq xeex. yëpp maa ko muy bëre muy xeex yëpp maa ko dàq. ku ëpp man maa ko ëpp lépp parce que man doomu séeréer la te mboru mbabat la ku ëpp mbokk. loolu waxaale wuñ ko sax ba bés ba incha allah si combat ba. jërëjëf waroon ngaa jël sa micro bi dugub bi Sénégal daree am dalaay ba eh, eh, Fatick Sokone Kaolack ba biir ginnaaw raay dama fa jël làmb dama fa mbapat ay làmb ginnaaw raay moo gën a métti dama faa jël poids léger soo kon waroon ngaa jël sa micro yi man maa ko ubbi mbokk. jaajëf lekk kontaan naa si yow. ma nga ñoom ñaar ñoo war laale. yaay waaw lii lu mu si na. dañ koo boot. cey làmb. Eh. lii lu mu doon eh lii bokkul ci liy defar làmb nag kii di sotti xorom si nii leket ak France eh signature contrat bi ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu dañ koo boot buusu na ndox bi buusu na ko moom France buusu na ko li yàgg na ci làmb boo nekkee Sénégal gis dugg si Modou ci làmb nga xam ni li yàgg na ci làmb boo nekkoon Sénégal ba gis dugg si Balla ci làmb nga xam ne lii yàgg na ci làmb dayo bi yàgg nañ koo dund ndeysaan français ngi noonu sol benn mbaxane bu xonq ñu boot ko mu mel ni bis bi tey boo ko xoolee da ngay jàpp ni sax kii tey la war a bëre cey làmb coow lay commencé waaye ci coow lay jeexee làmb ngi noonu sëñ Basiiru làmb gàmbee ngi noonu lu ne dóor lañ ma ko lu ne sotti lañ ma ko <laughs> cey làmb le volant français gi nii ndeysaan xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb xale la boo xamante ni waa Gàmbi gëmewuñu ko ndaysaan làmb gi noonu boot nañu ko ndeysaan boot nañ ko français gi noonu lay ñu jugee senegal ñëw ba Gambie ci affiche bu mag nga war a bëree ak leket nga dugg si stade bi ñëpp jug taxaw lan la. sant yàlla rek di julli si yeneen bi amal ñëpp jàmm yéen a ñëpp jàmm kese barke Serigne Touba kese loolu kese la du dara waaw. bi nga dugg see bi ñëpp yuuxoo loo sant yàlla rek. sant yàlla rek di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam lu sedd guy waaw incha allah. yàgg leket ci xeex wala ci bëre. ci lan la yombee. ñaar yëpp damaa xeex si. damaa xeex si. yéen ñaar ko ëpp doole. maa ko ëpp doole maa ko doole. moom nee na moo la doole. legen mag la. legen moromu ñoom moomu ñoom bato Sénégal ñoo man xale bu ndaw laa. barke Serigne Touba. dàq xeex. maa ko dàq lépp. kopp mbokk. lépp maa ko ëpp lépp. kopp maa ko ëpp lépp lépp lépp tënk na téere lépp. barke Serigne Touba Mbacke te keroog bis lépp dina leer. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag mu may ñu ndam ci kàttan suñu borom. su ma la dénkoon ne la bu ñëpp déplacé woo jugee Sénégal ñëw fu waay jóge ngir ñëw yëkkati làmb Gambie sa diggante ak leket pare ngeen samp jaaga xeex cinq minutes wala dix minutes. du xeex leket du xeex man maay xeex waaye moom du xeex licencié daal li ma koy dénk bu ko seetaanee na dem jàng na wut garde rek na wut garde te xam ne garde bi heure bu wàccee rek maa ngi ci kawam barke Serigne Touba. yan mbëru Sénégal ngay kontaagal. dégg ma yan mbëru Sénégal ngay kontaagal. non man instant yi kontaagu ma ak benn mbëru Sénégal di bëgg sama waa ji nag Serigne Ndiaye bu Faas. maa ngi koy san di ko ñaan waaw yóbbante ci yow ma ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm lu mu dugg rek. yàlla na ci am tawféex. barke Serigne Touba maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal mbër yëpp nag di ko ñaanal géejawaay dama faa dem préparer combat ñu jàpp ma di ñaanal mbër yëpp di ñaanal ñëpp jàmm man damaa nekk mbër moo xamante ni comme ni ma koy waxee damaa damaa yor jikkooy Balla Gaye yor fulla ji si Modou Lo barki Serigne Touba. loolu nag daa mel ni junj la wax la. wax laa la wax waaw. tey <laughs> France. wàcc na waaw day wàcc tee nañ ko topp na waaw France yëngu na waaw ku ñu laal sa rab nga yëngu du mën a ñàkk ci làmb ji France ak leket la ilaha illallah hey làmb ndeysaan xaaral ma tegal son bi. dama ne ku ci yor dara moo xam senegal nga nekk moo xam fii ci réew mi nga nekk bëgg ko jaay ñëwal jox ñu ko ñu jaay ko ci événement bi ñun ay ndaw lañ ay xale lañ gëm suñu bopp gëm suñu culture gëm suñu réew mënoon nañu dugg ci leneen suñu ñëwee jël suñu xaalis li ñuy am a néew di ko def ci làmb pour dimbalanteeg ndaw ñi la waaye nañ ñu delloo cër bi xam ne àdduna lépp teraanga la jàmm waaw ndax ba ngay organise fii xalaat nga dayoo ñaari mbëri fii feesul ci gannaaw dafa xoolal espace bu fa des mbëri xañ nañ fii xool yi rek mooy problème bi est-ce que fii ñit ñi dañoo ñëw amuñ fu ñu taxaw xoolal li des si gannaaw kon fii doomu aadama yi xaj nañ fi war nañ mun a ñëw mbëri ñëw ci jàmm face à face bu pare ñu ñibbi baa xam nga liy problème bi da ngay ñëw ci bisu jàmbur kon turaaguñ la fayuñu la bërewoo dóorewoo nga ñëw ne yaay gën a bëgg borom bis bi bésam mbër mi war a bëre yaa ko gën a bëgg bës loolu moo feeñ fii. est-ce que nekkul li nga tëgg moo moo moo.